il y a les autres dans la, dans la pêche les pêcheurs nga xam nga dañuy teel euh, dugg ci bateau yi parce que les, les parents sont dañuy dañuy teel a retraités donc il faut ñu remplacer leen alors donc ci transport bi il y a un problème d'organisation un problème de discipline bon temps yooyu jëloon nañu ay mesures même importation de roues parce que dañuy roues yi ñoo màgget et cetera bon voilà mais finalement est-ce que c'est vraiment ça mais ñëpp xam nañ par exemple moi il y a des syndicats qui me disent ils ont des problèmes d'aire de repos mm-hmm. Mm-hmm. une heure de repos. Mhm. c'est quand même la fin du monde pour faire de repos. oui Dakar Tambacounda y a beaucoup d'espace les mairies peuvent organiser ça même des privés et cetera c'était dans les résolutions non c'était dans les résolutions. Ouais, mais ça c'est facile à régler et puis mm -hmm. de la discipline c'est-à-dire soo dawalee huit heures ou je six heures bon tu dois dormir tant ak yooyu et c'est possible mën nañu ko repérer avec les méthodes numériques là euh, yooyu yëpp bon GPS donc on peut contrôler tout ça bon il y a beaucoup de travail d'organisation et de xam nga nag organisation discipline et là c'est l'intellectuel qui vous parle c'est le problème des Africains c'est le problème des, des Africains nous n'avons pas intégré Albert mi ngi fii yàgg nañ discuter ci yooyu il nous faut intégrer dans notre culture l'esprit scientifique et technique et le principe d'efficacité jigéen ñi foog ngeen jàngal ko xale yi parce que tubaab bi suñu rawee loolu moo tax la science les techniques les les les, les tout ça là mais la discipline. Mmh. c'est de la discipline c'est un effort sur soi-même y compris dans les raisonnements ñun li ñu bëgg mooy damay wax sama xalaat doon moo fi nekk bàyyi ma wax sama xalaat sénégalais yi suñu yéeyee seen guro lekk seen petit cola toog na wax seen xalaat sa xalaat c'est pas c'est bon c'est ta liberté mais c'est pas utile sa xam-xam nan lay laaj te xam-xam soo koy wuti dalay laaj discipline. dalay laaj yaru moo boobu ngay wax dafa tax beaucoup de pays se sont développés parce qu'ils sont disciplinés. mais forcément. mais ah, y a pas de y a pas de secret. Mm-hmm. mais on le voit dans les familles. dans les cultures familiales les familles les plus disciplinées les plus organisées les enfants font de meilleures études. tout à fait mm-hmm. bien sûr. ah oui. loolu la bëgg. discipline la bëgg cinq fois mu lay julli loo. ah et c'est toutes les religions d'ailleurs dañu commencé julli ñëppay julli après bon on a modifié après dans certaines mais mais ah, oui loolu c'est de la culture hmm. l'efficacité c'est également xam yow moi le temps mais compter hmm. le temps il n'est pas infiniment élastique comme on hmm. parle en Afrique